sori ni ñu ko réglé nañu wax dëgg donc boobu la ñu nekk ànd bi ànd bu dëgër la te incha allah mbaalo tempérament ak sama tempérament dem naa ñëpp xam ci terrain lañu mos xam terrain de la lutte ñun amuñu état d'âme bu combat jotee dañuy xeex bu waxtaan dañuy waxtaan comme ni ko Mbaye di waxee demuñu ko jeex dañuy dem ba am dara loolu dañ ko teg seen loxo parce que ko demee du jeex du am dara. c'est ça la philosophie de Ande Kese mais nag tiituñu ragal tout un chacun euh, peut une question et pour cela pour ordonner on va ouvrir une liste une première liste cette liste musée. si ballon n'est pas encore là on va ouvrir une deuxième liste donc en attendant ça donc une fois applaudissez c'est Maïmouna infirmière d'État admise à la retraite, ancien membre du SUTSAS. Uh-huh. Et jusqu'à présent, on accompagne les, euh, les, les, les jeunes. Bon, man dama ñëwoon ndax keroog bi ñu doon waxtaanee ba ñu la question pour euh, Namora bi ndax bu ñu en fonction nous avons dañu amoon ay dossiers déposé nañu sama compagnie gi déposé nañu xaalis bu bëri ndax temps yooyu du ñu waxoon ñu desee deux ans yi mënuñu si bokk léegi nak retraité nañu légui ñuy laaj suñu sor si eh, eh, namoraay yi Nous ndax suñu xaalis ngi fofu ñu bari yob ñom Fatou Nous sommes ñi Mariama Sarr ñom ñepp yobante nañ ma pour lolu waaw may encourager nak xalé yi bok ci bi ndax ñun nous nañu nañ leen légui nak bien. da ngeen di seeni ak courage <laughs> Salam alaikum, salam beaucoup, militant associé. C'est au niveau du ministère de la Santé. Il y a au maximum 5 euh, ans. Nous recrutons 1 an, 2 ans, 5 ans. Qui est 9 ans. Moi, en chair, en os, je suis depuis, depuis 2007. Je me Je suis contracté du ministère de la Santé depuis 2007. Contracté. Vous imaginez cela. Depuis 2007. Il y a un camarades qui ont 15 ans. Ils ont 15 ans mais c'est inadmissible. C'est inadmissible C'est c'est inadmissible C'est inadmissible admissible nek, suma su les secrétaires généraux ñu nous talk franchement c'est il faut que nous appelions ñu sur loolu pour que le gouvernement recrute recrute dans la dans la fonction publique chaque année nous les renouvelons. Ce ne renouveler renouveler droit yi na war a am doo ko am man droit yi ma war a am awuma quoi je suis, euh, je affecté au niveau du service technique de la maintenance. Je suis technicien, euh, électrotechnicien de formation. N'est-ce pas li nga am amour bi l'été hôpital amour bi kese dañ lay l'été hôpital amour kese amour est ce def leneen la leneen kon lu may ma est ñu technicien ñu est technicien parce que nous inquiétude loolu rek problème problème je vous remercie. juste magnifier cette. Euh, cette rencontre parce que à instance instant yoo dañ koy en tant que militant à la base souvent dañuy soxla vraiment ñi niveau supérieur di des di waxtaan ak mais surtout di jël si ci ñun suñu préoccupation pour ko remonter parce que ken ñi ci ñi ci suuf tax ñu fal leen te li nekk ci souf buñ koy da naka bu ngeen démé suñu kaddu ngeen di waxal li tax ma dellu ci ci loolu sànq dama dégg kaddu yu ma neex ngeen ni légui de plus en plus di ngeen sét naka ngeen di ñëwé ci base bi pour waxtaan ak nit ñi jël ci seeni soxla ak seeni xalaat remonter ko lolu moy essence même instance de coordination bo xamni ni ñëpp ko bok parce que encore une fois yéen ñi tok ci table ji yëpp ay ndaw ngeen yo xamni ñun ñoo leen ebal bu fekkee ni loolu kenn wu ko rek andando bi dina mën a dina mën a neex ben sama beneen intervention benn kii la rek benn suggestion boo xam ni ça a trait au contractuel muy yëf boo xam ni daf ñu ñor ñun ñëpp ñi nekk santé contractuel nag maa ngi jël ki ci gën a suufe ba ki ci gën a kawe parce que maintenant dans le système de santé trois quarts u agent yëpp ay contractuel lañ ñu bëggoon ñu réfléchir ci ben système fonction publique moy recruter on sait mais li ñu bëgg bu dé mëna na nekk fonction publique chaque année mu niñu dinañ recruter ci assistants sociaux yi nangam ñu dem ci région bu nek région bu nek dem ci district bu nek district bu nek dem ci hôpital bu nek ñu ne leen ñan ngeen soxla ñu recruter leen ñun loolu la ñu bëgg bëgguñu leneen su dee loolu vraiment c'est un combat boo xam c'est un combat qu'on doit mener parmi tant d'autres boobu mooy sunu combat pri priorité numéro un parce que ñëpp ñi nga xam ni buñ nekkee ay contractuels bu leen état bi recruté ay at at at at di dem bu yàggee comité de santé yi dinañ nooyi tuuti structures yi dinañ nooyi te kon dina jëm kanam li ma bëgg wax mooy ci de façon imagée tey jii bu ñu war a recruter dañuy dem ba xombol ni leen ñan ñoo fi nekk ci seen poste de santé yi ñoo xam ni ay contractuel lañu ñu ni fukk lañu ñu seet fukk yooyu juróom yiñ ci mën a recruter ren ñu ñëw hôpital régional laajte selon la catégorie socio-professionnelle bu ñu ko defee ba région bi yëpp mat ñu porter ko dem tour ak sant la ñu soxla ak poste bi mu nekk te bu ñu leen recruter lillahi wa rasuli ñu bàyyi leen fa ñu ne parce que fofu ñu nekkoon ce sont les comités de santé qui leur versaient des indemnités ce sont les comités de santé qui ont contribué à leur formation li ñuy gis souvent dañ lay recruter rek yëkëti la yobula fenen bu ko défé comité bi li mu investir ci yow yëpp da koy perte donc ce qu'on veut c'est qu'on recrute que le recrutement se fasse à part l'expression de besoin se fasse à partir de la base et une fois que les gens sont recrutés, qu'on les maintienne dans le site au moins pendant un ou deux ans, le temps que nous, nous fassions des permutation. Je vous remercie. Pension yi ngeen fi def yépp dafa am solo dafa am Mana. et c'est comme ça maintenant euh, je pense que président on va regrouper les questions généralement il y a des questions qui tournent autour des contrats ñi ñi une bonne réponse il tourné autour des des des des, des comment dire du, statut des des de certaines catégories personnelles notamment les les TS à yooyu ah am beneen ci heure supplémentaire donc euh, en grosso modo c'est ça Namora également Si nous faisons quatre yooyu ñu def une synthèse pour nous ne un yépp parce que camarade nous war a delluwaat ba Dakar je pense que c'est dina baax Ensuite, euh, pour demain, ils doivent également bien récupérer pour faire face au Premier ministre à nouveau. Donc, je pense que si nous sommes d'accord avec Lolo, nous devons le faire en président. Et après, nous nous avons euh, Juste après le retour des rencontres avec, de la rencontre avec le Premier ministre, certainement il y aura point de presse, etc. Donc, président. Euh, merci beaucoup euh, ah, contribution parce que comme le camarade bi a intervenu c'est la base qui décide tout c'est la base qui est souveraine parce que nous, recueillir les doléances nous, transmettre on passe à côté de notre mission donc c'est pourquoi le président Mbalo et moi-même avons décidé au-delà de la négociation qui va se passer, de continuer à faire ce travail-là. Parce que quand maintenant tu, tu as choisi de servir la cause des travailleurs, tu dois être à leur écoute. Si tu as une grande capacité d'écoute, tu peux régler le barré. Tu es bien le Man déjà, j'ai fait à barré quoi. Ci information yi nga xam ne gars yi joxe nañ ko ñi nga xam ne contractuels lañu depuis sept ans 2007 2006 ba léegi di muñ vraiment dafa quoi. et c'est pas juste parce que dans le système vous l'avez dit on a prévu une place pour les recruter alors que ñi ñi pas fi mais loolu teguñu ko fenn lolu moy bras long bras court bras jaune xom bo donc véritablement il faut que qu'on arrête ça il faut que comme ni camarade waxee ça elle a fait une très bonne proposition que les gens quand même identifient c'est pourquoi j'ai demandé au camarade tout à l'heure que fu nek responsable bu au niveau régional au niveau départemental da ngeen di coordonner xam la situation des effectifs dans chaque structure, des bénéfices, des contractuels, selon l'ancienneté aussi. Parce que si nous régulariser, nous tenir compte de certains nombre de critères. Je pense que quelqu'un euh, nous ancien, nous commençons par non. C'est comme ça qu'on règle le problème. Parce que sinon, il y a la retraite qui arrive. Si quelqu'un a fait 5 ans, 15 ans, il n'a pas de couverture sociale. Il va à la retraite, il perd sa famille, il perd. C'est fini. Qu'est-ce qu'on va lui payer de fin de contrat amul pension amul dara mais c'est catastrophique je crois qu'il faut que l'on nous joue vraiment dans les hôpitaux ce qui se passe C'est grave et d'ailleurs c'est pas bon pour les syndicats que nous sommes parce que si nous ñu fragiliser nit personnel précaire si on nous bu ñu jógee grève nous menacé nous dañ mais du grève donc si on fait une grève on peut même pas la réussir Il a vraiment un problème parce que les gens ont tellement peur qu'ils ne vont même pas aller en mouvement parce que tu dis que tu es précaire ñu sa crayon ko donc donc je crois que le président est très conscient et comme l'a dit tout à l'heure mort donc on est là-dessus on va continuer le travail là point vous demandez à chacun de vos responsables de faire la situation prestataire contractuel hein, c'est très facile Non, prénom bonne année parce que devant fois, on a un recensement national mais là, dañ ko teg gars qui souffle suuf jaar di recruter bu bu fonction publique recruter wu ñu liste bi mais da nga gis ño xamantene ñu ngi doon école ñu ñëw stage ci yow ñu recruter ko yow ñu bayal fi mais loolu du yoon donc c'est des choses qui sont réelles et ça il faut qu'on en parle qu'on dénonce il faut que ñu koy dénoncer état bi di ko dégg ñuy fëgg ci table bi ba paré dama né président dafa am lo xam il faut ñu def ko mënu ñu seetaan gars yi di recruter bu ñu recruter ñu né fonction publique rek moy recruter ñun on n'a pas le droit mais c'est pas possible fonction publique naka lay mën recruter naka lay xamee ne ñii ils sont compétents te syndicats yi ñefeewuñu bokkuñu ci commission de recrutement ça aussi il faut qu'on soit sur la table hein? mais bon, nekkulee ci tam naka ngay défendre sa militant yi naka ngay défendre sa militant tout à l'heure le camarade qui a parlé en premier disait que ah ben y a des gens qui ont woowee sa réunion de leen Vous bu ñu sonal waaye. wax comme depuis des années tu fais le même discours tu sortez ñu régler lépp en nos jours mais mën nañu def dara te je crois que ci lañ jëm dinañ def dara parce que nag nit ñi ñu ne gars yi nee nañu même yàlla bu ñu bu ñu koy bu ñu koy jaam c'est que dañu yaakaar dara ajana moo tax gars yi nee nañu ajana bu amuloon peut-être ñun ñëpp ay yéefar la ñuy doon loolu mooy dëgg on veut on veut qu'il y ait quelque chose qui bouge et pour cela je crois qu'il faut continuer et d'ailleurs je voulais féliciter aussi parce que li ngeen wax fi dara soxru fi defar rek la man dama ne critique ne pas dogoon réunion di raxasante di raxante ginaaw di wax lu neex ça ne sert à rien tant que génnewuñu yi parce que nous moy tax ñu avancer seule la critique est constructive et toutes les critiques sont constructives parce que fii kenn waxu fi propos lu ñagas kenn waxu dañu ne même ñi wax ci affaire Namora euh, vraiment maintenant comprendre comme madame qui a parlé des gens qui sont à la retraite et tout ça mais ça ne nga fa parce que Mballo lu mu di négocier moy état bi non seulement jàppale leen pour les problèmes de parcelles mais il y a de l'argent qui a été investi le gars il est en prison l'État avait promis une somme Il na yoo xam ne duñu ko wax ci kaw mais pour loolu yëpp ñu accéléré ko nit ñi gis ko ku dugal deux trois millions 4 millions mais da nga yaakaar ne au moins mën na régler ces problèmes wala bu ñu ko defalee sax ñu delloo sax li nga dem feneen ou dans un autre projet mais mënul mënul lii noonu donc loolu le combat bi mais comme ni ma leen ko waxee keroog gis nañ fa ñoo xamante ne du leen fa indi mooy yàq rek commencé de bëgg yàqel gouvernement gouvernement, mais on les a mis à leur place xamal leen ne ñun euh ñepp xamni ne surcharge monde, moo xaliss bi surcharge dafa def confiance en un promoteur qui dem ba ci bir gis ne problème pour l'amener. problème amna mais surcharge a continué à poser le problème au gouvernement pour que le gouvernement trouve des solutions et inshallah nous sommes en voie de trouver une solution yalla bu ci cat dugg rek mais vous me nekk que nous sommes en voie de trouver une solution pérenne qui va sécuriser tout le monde et qui va amener la confiance et la restaurer euh, ni une syndicat coalition coalition coalition c'est à vous d'être euh, engagé à nos côtés maintenant pour la question des techniciens supérieurs comme il l'a dit. Ah. la question des techniciens supérieurs on est là-dessus je vous dis que actuellement les choses se présentent bien les nouveaux corps vous allez voir bientôt si demain on va régler le décret signé. Mais je crois que depuis, depuis bonne année, ce problème est entier. Mais il est en train d'être réglé. Parce que le décret l'a pris en compte. Donc je pense que toutes ces questions-là vont trouver une solution, Inch'Allah. Euh, pour rassurer mon ami qui a également insisté sur la question de l'énormité de logement, etc. Donc je crois que les conquêtes sociales, c'est comme ça. Il faut que nous disions en, en compte l'aspiration de la base pour faire remonter. Comme nous avons une indexation, nous avons une indexation kon poste donc démarche en tout cas initié euh, le président Balo. et nous sommes sur la bonne voie pour véritablement régler ça donc je crois que l'homme grosso modo question yo nous et comme je l'ai dit le président malheureusement on vient de l'appeler il a des problèmes de véhicule demain nous avons délégation du primature donc nous aussi pour la JICA, hein? on a dit que nous allons continuer. Parce que le problème est presque réglé, mais on va continuer. Parce que nous avons intégrer l'EN au niveau de la fonction publique et je crois qu'on peut le faire. Comme les contractuels qui sont dans la main. Vous recruter. Mais c'est inadmissible. Man, j'ai vu des cas, des cas, mais comment ça veut dire que telle et telle personne on dit recruter, Nous, on est là depuis combien d'années Bon, je me dis, il faut qu'on soit vigilant. Voilà l'autre vous amène, nous débanez-les. Mais qu'on en parle, mais qu'on dénonce ça, c'est des pratiques mafieuses. Ministre pourquoi nous dénoncer là, demandez ton départ s'il le faut. Parce que je suis d'accord avec ce qu'il il faut se couiller. Nous devons faire. Droit, d'un devons faire. Mais si nous de faire, ou de sortir. Donc, c'est ce que nous continuons une mobilisation. Nous devons gouvernement, le gouvernement une autre détermination n'a d'égal que leur volonté de régler les problèmes mënuñu ko ça va dans des difficultés bañ ci dara te ñëpp ne coalition vous mu le nii bu ñu dóoree defe naa ne ab donc je crois qu'il ne faut pas qu'on teste notre détermination et notre engagement ni notre représentativité Vous ñu ko defee damay faral di que les gens assument leurs responsabilités parce que c'est eux devant demain vous population si di joytu système santé pas perturbé ce n'est pas la responsabilité des organisations syndicales C'est la responsabilité des autres hommes de signer un accord d'une respecté donc je crois que sous ce rapport demain il fera jour parce que demain n'est pas loin donc vous pouvez nous faire confiance peut-être que si nous partons là-bas et que nous allons partager les camarades seront là pour le partage il viendra vous rendre compte mais sous la ligne Inch'Allah, nous incha allah dinañ gën Dakar ak on n'a pas de problème pour ça mais l'essentiel aussi c'est que il appartiendra aux responsables des départements des régions de faire comme tu l'as fait chaque fois que de besoin bu ngeen da ngeen mais direction bi mais c'est une obligation on est obligé de venir vous vous parler de venir même dans les dents, au-delà de de de la capitale même dans les coins les plus reculés les conditions de travail les moyens dont vous disposez et quels résultats vous faites

donc c'est la même chose on ne peut pas aujourd'hui avoir des fonctionnaires qui sont déterminés qui soignent des malades parce que moi j'ai dit souvent je ne auteur ne euh, le tailleur trompé, bu ci sa def ci magasin bu pas. mu ko commande réussir ko mën nga dem mais y xam ne bu raté malade mënuñu ko réparer am na yenn kii boo xamante ne mënoo ko réparer parce que vous travaillez sur de lettres humaine te tey Sénégal macha je touche du bois euh, la preuve nee nañu fan nous nañu nañu nañu félicité ñu de réussir à conquérir le Ebola mais c'est parce que vous êtes là c'est vous qui avez réussi cela cette presse. maintenant même ñu ne lu sotti am borom xëy avons dina am ñoo xam ne décorer mais ñi ngeen ko réussir yéen ñëpp la c'est tout le système. Et tout ça, c'est à mettre au cri du système qui a fait face courageusement dans une période difficile, en renonçant même au droit de grève. Ça, on l'oublie. Les travailleurs ont mis en parenthèse ces mouvements pour régler, parce que la population est Le système est il faut faire confiance. Continuez à faire confiance. Vous qui êtes dans les trucs là, il faut parler aux contracteurs aussi qu'ils se syndiquent. Parce que aussi c'est important. Ils ont le droit de se syndiquer. Parce que si nous syndiquons, nous avons le nombre. Moi, je vais peser mais il ne peut pas dire bah pas de contractuel de du ma et puis cotiser parce que cotiser moi joxe seen responsable une quand je vous ai vu vraiment bonne c'est les moyens que ça demande de se déplacer d'aller, de téléphoner de d'aller sur le terrain tout ça C'est les cotisations à la base qui vous permettent d'être autonome parce que nous, ñun bëgguñu jël la kenn parce que nous des abal Nous, sommes la fii ngay qui ñun dañu lu Nous, neex la ñoo ci dëkk bi nag waaw Nous, ñu neex la gens qui jëluñu alalu jambour tooñ ñu kenn saaguñu kenn way buñu ñu waree dañuy door buñu ñu naree dinañu gësëm ba mu saf-saf waaw donc loolu mooy wax ji yeen nak yéen a affaire yi il faut pousser gis nga li ngeen def bu len ko bàyyi bu ngeen gisee lu jaaduwul ñun ay responsable lañu il faut nous rappeler à l'ordre on vous le permet parce que c'est comme ça qu'on va avancer il faut nous mettre aussi la pression parfois def pression moy obligation de résultat syndicat du parti politique mënuñu ñoo fi di promettre lo xamné ne le c'est du concret la preuve c'est la défense des intérêts matériels et moraux Ce n'est pas de la propagande ni c'est des problèmes que vous vivez mais ce que vous voulez c'est des solutions donc nous sommes tenus de nous battre pour qu'ensemble on ait ces solutions là donc on est sur la bonne voie et on vous remercie aussi de la patience parce que depuis le matin il a en a qui ont depuis le matin heure donc yalla na yàlla fay sen patience bi yalla nañu yalla may résultat ñu gagné suba bu ñu demee am ay victoire yo xamante ne na leen permettre ngeen mëna a di dimbale sen jaboti. yi bi ngeen li leen amel ay 2 milliards yi dinañ ba d'ici avril au plus tard yëpp né dugg déjà dama leen né fin mars bu ñuy fay salaire nañ dara ak ak donc je crois qu'on est bien parti mais continuez à faire leur votre contrôle votre contrôle de militants sur la direction mais je vous demanderai aussi de soutenir vos responsables. Parce que les responsables aussi, euh, ils sont au service de la collectivité. Ah, hein? Ils ont dire beaucoup de choses. Donc il faut tout faire pour que vraiment nous puissions ensemble, au soir, que nous puissions vraiment engranger des résultats. Pas mort, je voudrais, euh, au nom du président Balo, parce que maintenant je suis convaincu que nous avons un problème. Euh, D'abord, le ministère Moupan. Euh, la preuve nous sommes 4-4 gars quoi donc une euh, <laughs> nekk à 100% parce que amuñu xaalis mais dañuy rek <laughs> donc na Nous comprendre ne noonu ah, ah, affaire yi donc ba mort, ah, léegi daal je naa bu daba quelques cadeaux. c'est bon dañuy nous lañ nous 8 heures nous Nous nous quatre heures et demie def nañu lépp ba feega daw si yegg si ndaxte on ne parle plus de euh, Soutsass on parle de And Gueusseum seen secrétaire généraux yi de man de yàlla dogal na négociation yu ñuy def dinaa ko fekkee mais nag ñi ngi naan duñu grève mais ku olof nee na ku miin sa wax yàpp la ñun de autorité yi am na fuñ ñu teg parce que yàlla dogal na ne bu ñuy toog ministère yëpp ay toog ak ñun lañuy wax ñoom ñëpp ñu koy dégg ba ñu ba xam ni nag buntu amatul premier ministre moo nangu dossier bi amee recevoir ñu jox ñu ay directives yu clair ñu nit ñu wax ko ni euh, date butoir fii la bu fekkee ni mënuñu ci am li ñu gënal ñun dinañ seet nan la ñuy def te yaakaar naa ni.

parce que suñu première rencontre ah, rencontre interministérielle 4 heures ba 23 trois heures ñi ngi ministère kon nga xamni lañ fa doon wax fu laak fayda la te ñañ doon wax doon nañu déglu parce que suñu tegul won fenn dinañ ne merde on en a marre vos bagages et partir. mais xam nañu li li leen wax dañu décider te suñu amul gain de cause dinañ dem jusqu'au bout lolo waral woté guñu grève dañu woté ni nañu sensibiliser suñu base ba ëllëgee ci biir bu ñuy jógandee ñu xamni ni ñëpp jóg nañu ngeen ñaanal ñu nag ndaxte ndam li ci yéen lañ ko yaakaar parce que seeni problème lañuy sakku pour lu ko régler te bu régler suñu ndam la kon bok ñun li ñuy wuti yàlla nañ ko yalla defal ñun ñep ma ngi leen di gërëm di leen sant man c'est madame Rokhaya Seck je suis technicien de labo au centre de santé Gaspard Camara je suis la coordinatrice générale de, du syndicat SDTV de Dakar merci. mooy syndicat da ngay ñu waxtaan nak say militant ñi nga xam ne ñoo la jox mandat ba yow nga nek fi nga nek donc ñuy rafetlu accueil bi nga xam mom suñu Pape Mor mi responsable bi wootee

Euh, euh, euh, li nga xam ne accord yoo xamante ne ay 2014 boobu ba léegi ñu ngi koy saytu donc question yi xam ngeen ni bëri na heure supplémentaire yi nee na gouvernement mi na fay ji ci toll 1 milliard 500 pour fin de mars bi ñu dugal ko ci salaire bu ñu fa jógee avril ñu avancé lu ci des bi muy 500 millions su ko defee liggéeykat yi mën a jël seen i droit filière yi nga xamante ne surcharge posé woon na ko ànd ak gësëm jëlaat ko muy INDSS ñu ubbi ko ci euh, pour nous plan de carrière xam nga ni avons fait sax grève amoon na fa euh, mu marche fa. ba ñu door étudiant. ay grenade lacrymogènes ba gañ ko fi. donc ñu vraiment euh, war nañu fait ba ñu parce que nit aussi bo jang ba am li jax sax da nga continuer système LMD la wax mais ñun boobale ñu ngi ci elm ñu ngi ci el waxuñu M D. waaw mané lolu mo fu donc lolu mo tax ñu ne fait régler gis nañ aussi yeneen question yoo xamante ne parcelle namoraay te dégg ngeen tey sa yaram sax day daw parce que dafa am ñu dugal seen xaalis ñii ay 2 millions ñii ay 4 millions pour ay parcelle boobu ba léegi opérateur bu ko jëloon muy ay mu am ay jafe-jafe bi dossier bi dem tribunal euh, surtout ça jóg na véritablement ñax gouvernement pour mu jàppale leen pour que ñu dimbale leen lii ci côté parcelle yi ak côté aussi moyen yoo xamante ne na permettre ñooñu nga xamante ne dañuy dugal seen xaalis ñu seet naka la ñuy def pour ñu jàppale leen donc au total suba daal lu ñu xaar mooy jëf. wax ji moom jeex na waaw sinon gësëm. gësëm gësëm mais wax nga ne 2014 yu ci bëri si revendication yi 2014 la woon est-ce que am ngeen yaakaar bu ñu xoolee ne dafa mel ni daal gouvernement bi dafa dese am yéene yi saafara jafe-jafe yi ngeen di teg. non mais je pense que cette fois-ci boo cee jiite jawriñ bi jël ko xam na ne gësëm moom gësëm rek. waaw waaw mais dugal dara. dara dugal gësëm. gësëm gësëm merci. merci.